bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifatil ilmi wa xassin axlaaqana bil xilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxamar raaximiin يا رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النصور mbokk yi bàyyi xel ci seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi ñu santee suñu boroom subhaanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa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 ñaari kuréel yu mandi di doon buñ jàkkaarloo te ñëpp di ay mbokk ñu ñëpp ñuy ñenn bu loru de amit ku yaakaar ne da ci ciy mucc da ngay nax sa bopp moo tax fitna moom alxuraan dane woon moytandiku leen ko ndax la laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waaw fitna moom bu ñëwee du yem ca tooñkat ya dong du yem ca tooñkat ya dong day lawa lawa lawa law ba yàqal la lum la yàq loo xam ne eh, yow sa yoon nekku ci nga doon wax waaye du te fitna ji lor la loolu ko xool dama ko gis ci àdduna bi ci fànn yu baree baree baree bari ndax bu ñu baaree dem ak dikk tardeel la nga am ci sa wàll bula ay garanaat raklome seen xeeñee nga jaare ca soj nga am ci sa wàll te nag eh, léeg ñu dund jamono yoo xam ne noonu lay mel moo tax wa in taifataani min al nax tatalu fa aslixu baynahuma la alxuraan wax bu fekkente ne ñaari kuréeli jullit bu fekkente ne ñaari mbooloo dañoo jàkkaarloo dañoo am réeroo ci seen diggante na ngeen jéem a jóg ci def ca seen kamtalaayal kàttan ca nam gën a rafete loolu la yoon di liggéeye waaye loolu la médiation itam di liggéeyee da am ab defare dadaan am ci mpénc artu da daan am ci mpénc ndax mbir day toll foo xam ne ku ko defut danga nga àtte yal yàlla def jàmm ala kulli alin jàmm daal moo jige te lu di wut te amoo jàmm boo demee ba am ko it ko fa bàyyi wuti jàmm wala sax doo ko am ndax mooy tax nga man ko tal yal nañu ko yàlla defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ab jullit dëgg mooy ki nga xam ne day jàmmal jullit yi ciw loxoom waaye day jàmmal jullit yi nii ciw làmmiñam wax ju ñaaw da koy moytandiku wax ju ñaaw léegi da ngay mujj yéemu ci borom bi subhaanahu wa taala ci wax ju ñaaw nga xamante ne feeñalante ay sikk ak ay ayib yowoon démb bu ko nit di def sax du incité jëf yu ñaaw ju man di doon rek nit mën naa xëy ñu génneel ko ko ci penc mi tegal ko ci kanamam mu di ko gis yàlla xam na ko te doomu aadama nag li tax jàmm am ci penc mi mooy sutura sutura si yàlla tekki suñ kaw mooy tax mu mën a dem waaye wañ wàññilante weex-weex ak yi nga xam ne moom lañu jógee ci xawente ay sutura mën naa taal am réew ndax loolu mën naa yëngal àdduna te daan na ko yëngal ba tàyyi yal nañu yàlla defal ak dal te dal googu mooy ñu jàmmalante bañ ji bànneexu ban bañ ji bànneexu ci suñ sikki moroom yi ndax loolu lim ñu yàqal dafa bari ñoo ngi nuyu baax soppee almisbaax yëpp sëñ Alassane Loum maa ngi lay nuyu baax baax sama xarit boobu gëj naa laa gis di nuyu soxna mère Diagne di nuyu maam Kiné Thiam maam Ramatulaay Baaji sama maam eh, sama yaay soxna Biige Sow ndeysaan duma leen mas a fàtte samay soppeeki am di jàmm yoo xamante ne ay yaay lañ waaye noonu la yàlla dogale ànd bi man ak ñoom yal na yàlla barkeelal leen yal na yàlla sàmm leen te sàmm seenu njaboot yaay booyee jote jiitu yal na yàlla yërëm leen eh, maam loolu li caam maam munina kunta ak eh, suñu jur yëpp rek suñu bindu al misbaax démb maa ngi taxawoon ci li ñuy wax al istiqaama ma ne la woon bu xol bi jubee rek cër yi day jub docteur Anna Dia ñu ngi lay nuyu baax a baax xol mooy buuru cër yi moom la ñuy wax ne mooy buur xol bi xolu doomu aadama mooy li am solo bu xol bi baaxee day yomb mu jubbante ay cëram ci ci yi tegu ci lu baax kon al istixaama ci bindu démb ba mooy yoon wi nga xam ne mooy yoonu mucc waaye al istixaama mooy li nga xam ne bu ko xol defee cër yi dañuy daal di jub ñoomit it ca saasa al istiqaamati istiqaamatul xalbi ala tawxiidi jub buñ koy wax jubuk xol mooy xol boo xam ne day wéetal borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne du bokkaale kenn ak yàlla da koy kennal xol bi yàlla da ciy nekk fees ci dell muy nux nuxi di dund borom bi subhaanahu wa taala di yëngutu ndax moom di yëngutu ak di di ndax moom inna alladina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu ñi nga xamante ne nee nañ yàllaay seen buur ba noppi ñu jub ñu jubal seenub xol bi annahum lam yaltafitu ila gayrihi duñ geestu mukk xool leneen lu dul yàlla waaw borom bi subhaanahu wa mooy fees dell seenub xol ñu wéetal ko fa matastaxaamal xalbu ala macrifatillahi wa ala xafiyatihi wa ijlaalihi wa mahaabatihi wa mahabbatihi wa iraadatihi wa rajaacihi wa ducaa'ihi wa tawakkuli calayhi wal icraadi amma siwaahu istiqaamati aljawaaricu kullaha wala kulluha ala taatihi saa yu nit ki góorgóorloo ba ab xolam jub xiir ko ci xam borom bi subxanahu wa ta'ala ragal borom bi subxanahu wa ta'ala ab xolam di màggal borom bi subxanahu wa ta'ala ab xolam wekk borom bi subxanahu wa ta'ala ab xolam bëgg borom bi subxanahu wa ta'ala ab xolam namm borom bi subxanahu wa ta'ala ab xolam yaakaar borom bi subxanahu wa ta'ala ab xolam buy ñaan di ñaan borom bi subxanahu wa ta'ala. ab xolam mu wakkiir ko ci borom bi subxanahu wa taala bu boobaa ay cëramit cër yëpp dañuy jub topp borom bi subxanahu wa taala moo tax xol bi ngay xeexal sa xol mooy say yëg-yëg say xalaat euh, da nga koy da koy fexe dundal fexe mu yàlla mooy tax booy julli da ngay sawar kon ci dem julli ji booy déglu alxuraan da nga cey sawar day neex waaye xol bi ci boppam moom moom nga tàggat. moom nga moom moom moom moom nga téye moo tax dangay fexe ba ba xol bi baax bokk ci xol yi nga xamante ne xol yu sell lañ ndax fa innal xalba huwa malikul abaahi xol mooy buuru cër yi moom moom cër yi wa hiya junuuduhu fa isa staxaamal maliku istiqaamat istiqaamat junuuduhu wa raaya bu fekkente ne boor bi dafa jub teg tegu ci yoon ku ne xam na ne soldaar sax ñam yilif ñoom ñëpp dañ koy topp ci lam leen di digal ndax mooy tracé programme ba moo koy joxe ta bu boobaa loolu jub lay doon xol bi nag noonu la mel moom cër yi dañuy topp li xol bi di yëg désiiri xol bi rek moom la cër yi di topp moom la cër yi di topp moo tax léeg-léeg nit ne xol doo nga takku ba noppi lu bon lu ne mu koo def ci ay cëram ak kiw làmmiñam ne saab xol moom lu baax la déedéet xol bi bu baaxee te nga tàggat ko jëf yi muy jëf day def jeexital ci cër yi day def jeexital ci cër yi xol bi bu jubee cëri yi day jub tàmbulee ànd ak moom wa ahsamu maa yuraa istiqaamatuhu baadal xalbi minal jawaari al lisaan ginnaaw bi xol bi defaroo li gën a rëy ci li muy njëkk jubal ci ay cëram te mu war a lu jubal ko mooy aw làmmiñam làmmiñ laay làmmiñ moom cër yi moo ci gën a doy waar làmmiñ wu dëng mooy yóbbu boroom ci ndëngte yépp moo koy yóbbu ci bàkkaar yépp moo tax xol mooy buuru cër yi waaye góorlu ba jubal cër yi tam am na solo ndax bu xol bi jubee day dimbali cër yi ci mu jub moom itam inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu al istixaamatu xaqiqatuhaa adamul iwijaaji wal mayli waaw al istixaama euh, dëgg-dëggam dëgg-dëggi sax ci njub mooy ñàkk dëng ñàkk jeng ñàkk jëme ci loo xamante ne nii day sori njàngalem lislaam moo tax fastaximu ilayhi wastaxfiruhu loolu la yàlla wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam da jàngoon ko yonent bi wax ñu ko jub leen sax leen ci ak njub te ngeen jéggulu seen borom boroom bi ne ko fastaqim kama umirta waaw tegal sa tànk ci li ma la digal li ma rëddal teg ci sa tànk nanga nga jub fastaxaamu tashmalu maxnal wafaa'i bi ma kullifu bihi mooy matale mboolem li nga xam ne moom la suñ borom subhanahu wa taala gàll ci saw loos nga sax ca moo tax su mastaqaamu mooy lam yusrik billahi shay'an waaw ñi nga xam ne neneen yàlla mooy seen buur ba noppi ñu sax ci ak njub Seydina Omar ibnul Xataab da doon wax ne inna alladina xaalu rabbuna allahu ñi nga xam ne neneen yàlla mooy seen boroom summa staxaamu te duñ ko bokkaale ak dara noonu la ko daan firee lam yusriku billahi shay'an daan na wax itam istiqaamu ala tariqati li taatihi summa lam yaruqu rawxaana chaali bi mooy sax ci ak njub teg sa tànk ci yoonu siraatal mustaqim Seydina Ousmane wax ne summa axlasul amala lillahi ñi nga xam ne nee nañ yàllaay seen buur waaye nag ñu sellal seeni jëf te yàlla tax Seydina Aliyun wax ni addawul faraida wa kullu haadihi al axwaali maana al istixaamati fil imaani wal achar Seydina Aliyu nee su mastaxaamoo ci aaya jooju mooy matale farata ñeenti wax yi nga xam ne euh, Seydina Abubakrin Siddiq Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliyun yëpp day dellu ci wane ne al istixaama mooy ak njub waaye mooy teg sa tànk fi nga xam ne moo neex borom bi subhaanahu wa loolu lay tekki Seydina Abubakrin Siddiq mu ne su mastaqaamu mooy doo bokkaale yàlla dara Seydina Omar ne istiqaamu ala tariqati li taatihi mooy teg sa tànk ci yoon wi ci topp borom bi subhaanahu wa taala Seydina Ousmane ne summa axlasul amala lillah mooy sellal jëf ji te yàlla tax Seydina Aliyun ne summa adawul faraida mooy jooxe farata yi ba mat al istiqaama mooy sax ci ak njub lu am solo la xaalu rabbuna fum summa staxaamu nga xam ne lu mat lay doon te doon lu mat a mat ci diine ji bu ñu xool kon ci xam xamle baat bi nga xamante ne bi moo ci su ñetteelu émission te ñuy waxtaane li nga xam ne mooy sax ci njub te ñëwaguma ci aayaat yi ak waxtaan wi dëgg-dëgg dañuy gis ne borom téere ba te mooy albasair lam daan wax ne al istixaama kalimatun uxida bi majaamici diin wa hiya alqiyaamu bayna yaday llaahi taala ala aqiqati sidqi walwafaai bil ahdi wa hiya tatacallaqu bil aqwaali wal afcaali wanniyaati wal istixaama fiiha wuquuhu lillahi wa billahi wa ala amrillahi tabaraka wa taala bu ñu tënk baat bi ak déggéen yi nee al istixaama baat la boo xam ne dafa ëmb lu bari ci wàllu diine ndax taxaw gi jaam bi di taxaw ci kanam boroomam subhaanahu wa ci dëgg dëgg dëggal ga ak matale ga kóllëre li aju ci ay waxam ak ay jëfam ak ay yéeneem aju ci ak njub aju ci yi nga xam ne moo bàyyikoo ci borom bi subhaanahu wa taala ak bàyyee gi ko bàyyee boppam loolu mooy al istiqaama am na yeneen borom xam-xam yu wax ne istiqaamu yushiiru ila asaasil amali saalihati jub googu day tegtale nit ki góorgóorlu ci jëf-jëf yu baax istiqaamatu alal xaq te mooy tegu ci digg bi bañ a jeng jëm ci benn boor loolu mooy lenn ci li nga xam ne mooy baatu al istixaama te mooy sax ci ak njub njub yal nañu ko yàlla defal jub moom lu am solo la jub mooy yaru jub mooy yiw jub mooy jaamu borom bi subxanahu wa taala jub mooy déggal ko jub mooy nite bu yooyu bu ci dañ rek njub gi day daal di tàmbalee manki nga xam ne jubadi ji moo indi coono yi ci penc mi. bu circulation bi jaxasoo ku dawal dawalin wu jubuta ko andi bu ñu lekkee kees gi ku yor kees yorin wu jubut moo ko indi bu ñu amee ay jafe-jafe ci penc mi ba tabaxi kaso ñi dëng ñoo ko fa yóbbu ñoo tax ñu def ko ndax maison d'arrêt et de correction la ñuy wax maanaam kër la goo xamante ne nii dañuy téye nit ki ba noppi jubbantiko ko maanaam jubbanti kon jub la waroon a def ndëngate ga moo tax ñu war koo jubbanti maanaam corriger ko correction al istiqaama loolu lay tekki moo tax bi ngay julli saar wi nga xam ne moo gën a màgg ci alquran ma ñëw ci aayaat yi al ayat al waarida fil te mooy aaya yi nga xam ne day wax ci wàllu njub boo ñëwee ci alfatiha ñaan ga nga cee njëkk a ñaan mooy astirat al mustaqim baatu al istiqaama ñëw na ci alquranul karim ci ay aayat yu limu bokk na ci aaye baat ba ci njëkk ma nga ci suurat al-fatiha saar wi nga xamante ne moo gën a màgg ci alxuraanul karim boo koy jàng dangay sant borom bi nga xam ne moo moom mbindeef yépp bakk borom bi ci feeñal ko ne ko yërmande moo ko moom bakk borom bi ci ne moo mooy kilifa yowmal xiyam bàkk borom bi ci won ko ne ko jaamu moom yow rek yaa ko moom yow lañ koy def bàkk ko ci won ko ne ko sàkku ndimbal yow lañ koy def ñi ne la ñaan ko nga xam ne danga koy ñaan bi nga koy ñaan li ko njëkk a ñaan mooy mu teg la ci yoonu jub bi li ko njëkk ñaan mooy mu teg ci yoonu jub bi ihdina sirata al mustaqim yàlla yàlla nag ñu teg ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu jub bi waaw Cheikh Serigne Dem ci njaareem maami sëñ Moustapha mu baax mi day wax ne asiraat al mustaqim ca téeréem ba euh, tafsiru quraanam ba euh, dana ñëwaat sama bopp léegi da cay wax ne siraatal mustaqim mooy yoon way tax a àgg ànd ak ngërëm yoon wa nga xam ne boo ca jaaree ba àgg ci suñ borom subhaanahu wa taala mu gërëm la yoon woowu mooy siraatal mustaqim noonu la ko firee kon mooy yoon wu jub bi yoon wu jub bi yàlla nañu ci yàlla teg te mooy yoonu diine mooy baat yi ma la doon firil ci li ko jiitu lépp mooy tegtale baat boobu nga xam ne mooy ak njub te mooy siraatal mustaqim jeneen aaya ji ci topp ci e, mbëmbëstal bala ñoo ñëwaat ci surat al-fatiha bi ma ngi ci surat al-baqara borom bi subxanahu wa day wax ne dof yi dof yi nit ñi nga xam ne dañoo nitoo diku dañuy wax naan maa wallaahum an qiblatihim kaanu alayha waaw lan moo lan la lan lañ xewle ba naan dañoo wëlbati ay xiblaak fañ doon jublu jublootuñu fa ak yooyu ñii lan mooy seen problème yàlla nee na dof yi loolu la ñuy wax waaye mu ne leen lillahi al mashriqu wal maghribu yahdi man yashaau ila siraatil mustaqim yàlla nee na maa ngi penku maa ngi sow maa penku mamoom moom sow maay jubal ku ma neex nag waaw ku ma neex maa lay gindi yëhdi fan laa lay teg ila siraatil mustaqim ba nga tegu ci yoon wu jub wa kon siraat al mustaqim ca surat al fatiha ihdina siraatal mustaqim waaye siraatin mustaqim ca suratu eh, al baqara cent quarante eh, cent quarante trois wala cent quarante deux eh, yahdi man yashaau ila siraatin mustaqim yàlla nee na maay gindi ku ma neex teg la ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu jub bi kon al mustaqim al istiqaama te mooy sax ci ak njub sax ci ak njub loo ko jëndee na la ko jaral fexeel ba bu la yàlla xool mukk gis la bëtub ku ñàkk jub bëtub ku ñàkki teggin wala ku ñàkk ab yar wala kuy jalgati yi nga xam ne moom la tegal ëpp naa def jeneen aaya ci suurat al baqara goo xam ne iraasiraatil mustaqim la jeexe borom baa ngi koy wax naan kaana naasu ummatan waxidatan fa baasa allahu nabiyiina mubashiriina wa mundiriina wa anzala maahum alkitaaba bilxaqi li yaxkuma bayna annaasi fi maxtalafu fiihi wa maxtalafa fiihi illa alladina uutuuhu min bacdi maa jaathum albayinaatu baxyan baynahum fa hada allahu alladina aamanuu lima xtalafu fiihi min alxaqi bi idnihi wallahu yahdi man yashaau ila siraatin mustaqim allahu akbar yàlla nee na moo yónni yonent yi ci nit ñi nit ñi nekk aw xeet nee na maa yónni yonent yi yonent yi ñëw di leen bégal ci àjjana di leen xupp ci sawara maa jox yonent yi téere yi ñu ñëw war a àtte nit ñi ci dëgg ci li nga xam ne moom la wuute moom la wuute waaye yàlla nee na maay gindi ku ma neex maa gindi ñi nga xam ne dañ ma gëm maa leen gindi leeralal leen ba amuñu ay dut ndax yàlla nee na maay gindi ku ma neex teg la ci siraatal mustaqim xoolal ak siraat al mustaqim saa su nekk day ànd ku gindeeku day ànd ku njub ihdina yàlla na nga ñu jubal yahdi man yashaau yàlla ne maay jubal ku ma neex ila siraatil mustaqim fii wallahu yahdi man yashaau ila siratil mustaqim yàlla nee na man maay gindi ku ma neex teg la ci yoon wi nga xamante ne ni mooy tax boo agsee ma gërëm la maa ngi ci al istixaama baat bi ak ayati alquran yi nga xam ne tudd nañ ko inna allaha rabbi wa rabbukum faabuduuhu haada siraatun mustaqim ca suratu ali imran mu ne yàlla de mooy sama borom mooy seen boroom ñoo bokk boroom yàllaay suñu buur déggal leen ko jaamu leen ko te xam ne diine lislaam ji teg ci sa tànk mooy teg ko ci yoon wu jub wi haza siraatul mustaqim mhm. yaa ayuha alladina amanu in tutiicuu fariqan min alladina uutul kitaaba yarudduukum bacda imaanikum kaafiriin wa kayfa takfuruuna wa antum alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man yactasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim borom bi subhaanahu wa taala daa woote ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm jullit ñi bu ngeen toppee kuréelu ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla dañ joxoon leen ay téere danañ leen delloo ginnaaw génnee leen ci ngëm gi ngeen nekk ngeen doon ay yéefar mu mel ne nag loolu da koy jaaxal mu ne naka ngeen may weddee te yonent bi nekk ci seen biir di jàng aaye alxuraan yi waaw naka ngeen may weddee alxuraan nekk nekk nii ngeen koy jàng xam ne maa ko wax yonent yàlla muhammad nekk nii ngeen xam ne mi ngi nii yàlla neen képp koo xam ne mooy na ci man mooy na ci man yàlla def ma may buuram ma gindi ko teg ko ci yoon wi nga xamante ne nii mooy tax mu jub waaye ñun naka la ñuy weddee yàlla ñun naka lañ war a mën réere suñ mbiri diine naka lañ war a mën a di créer ay affaire yu yoo xam ne xamuñu luy bopp bi luy geen bi naka lañ mën a ñàkkale solo suñ digganteeg suñ borom te wa antum tutla aleykum ayatullah te ñu ngi jàng alxuraan ñu ngi wàccee kaamil yi yaa ngi ci jàkk yi di julli daaray alxuraan yaa ngi fi yaa ngi dem di siyaare sëriñ bi yaa ngi gis maanaam lépp ngi nii nga di ko gis ñuy jàng alxuraan ci sa kanam naka nga fi mën a bàyyee alxuraan jooju dem di ngoyee ci leneen wa fiikum rasuluhu waaw te am ku toll ne yonent yàlla muhammad muy sab yonent hmm? te am ku toll ne yàlla muhammad muy sab borom bi nee na ku ngoy ci man ma gindi la teg la ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu jub wa siraatul mustaqim yal nañ ci yàlla boole teg ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yal nañu yàlla defal al istixaama euh, xiir ñu ci ñu man koo topp jàpp ndilal ñu ñu jaamu ko musal ñu ci bépp jàpp ndal boo xamante ne buñ ko defee danañ wuuteeg am ngërëmam yal nañ jubóog suñ borom subhaanahu wa taala ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di békki ni ngeen di toppee jotaay bi di jégguluwaat bu baax ni ma ko waxee woon ci jotaayu démb ba ñaare buñ noppee ci baax am na ñoo xam ne baaxoo woon nañ di dégganteeg ñoom ci njël gi ci appel normal waaye jamono ji dañoo génn réew mi euh, looloo tax waaye nag